téléspectateurs de la Sen TV bonjour dalati leen ak jàmm ci seen euh, émission bi ngeen safoo tàmm ko seen bopp mu di 100 pour cent buzz alors 100 pour cent nag comme ni ñu koy defee samedi bu jot bu di jotee dañu ci euh, dañuy leen di dégtal actualité yi nga xamante ni moom moo gën a fës tukkee ci suñu ay people ci site euh, internet yi noonu nag duma ci wéet benn yoon bigi laa ci àndal waaye émission bu tay bi dañu fi amal ab invité bu nga xamante ni daanaan bu mag la ci li muy yëngu kenn dootul présenté fii ci Sénégal mu di Mame Gor Diazaka alors laata ñuy ñëw ci moom dañuy nuyoo ak Biggi Biggi noo def. maa ngi nii rek na fi. Hmm. ça va très bien. waaw yaa ngi si jàmm. maa ngi sant bu baax comme ni téléspectateurs yi nekkee si jàmm. Hmm. chaque midi tous les samedis ñu ñëw jàkkaarloo ñun sur la Sen TV ñu bëggal leen ci people ci actualité aussi en même temps. ak lépp lu xew ci net bi ak musicalité bi xam naa tey rek ñu xuus ak invité bi ñu am tey mu gën a neex. samedi bi passé couvre-feu bi taxoon nga boycotté. couvre moo taxoon mais à la demande générale Daba Boye la bëggoon. moo tax mhm. leen mais bii mooy daal incha allah. Euh, voilà alors euh, Mame Goor yow moom téléspectateur yi dañ la namoon. waaye maa leen daw maa leen daw mhm. Sen TV suñu kër la. Mhm. may nuyu Bougane di nuyu képp koo xam ni. yaa ngi bëggee des voilà maam góor euh, sans doute moom la ñu fi àndal tey euh, waxtaan ci lu bëri bëri mais surtout ci actualité bi actualité hmm. boobu sax nag la ñuy tijjee ànd ak hmm. bi gi mu wax ñu lan la web bi wax tey alors web bi tey li mu wax dafa bari waaye dañ ciy njëkkee li nga xamante ni mooy li xewoon fële ca Médina couvre-feu dafa am xam na ni période bi ñu toll il est interdit de sortir à partir de vingt heures ba six heures du matin mais aussi am na yenn jeunes yoo xam ne ñu ngi dëkk fële ca Médina ñoom respecté wuñu li nga xamante ni moo di norme yu ñu wax le seneweb.com moo ñu ko xam xamle parce que Aliou Ngouille Ndiaye dafa génn ne ce qui se passe à la Médina va cesser maanaam li nga xam ne dafa jot a xew ca Médina day doo day dakk dootul amati parce que moom aussi gis na li nga xamante ni xale génn nañ ci bi coow li bëri na nit ñi reprendre nañ ko et am na ci quatre-vingts jeunes yoo xamante ni sax d'après les vidéos qu'on a eu leen doon pompeloo fële ca centrale di leen wan ni que à chaque fois naan leen dootuma génnati bu vingt heures jotee et cetera mu nekk ay yoo xamante ni vraiment nit ñi rafetlu wuñu ko mais aussi bu ko nekk toogee sa kër defe naa feebar bi du mën a propager wu ah maam Góor waaw li nga wax dëgg la parce que man damay wax ni chaque jour loolu lu may tàmm di wax la mhm. parce que population moom mooy defar dëkk parce que tey jii bu ñu amee ay njiit yi ñu war a am ñu génne moyens yi war a am yëpp teg ci kaw taabal ji leneen li ci des moom mooy population bi nangu li leen kilifa yi wax ñu def ko mhm. te tey jii yaakaar naa ni état bu demee bay jël ay mesures day waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu santé te Médina nag tey jii mhm. Mhm. mun naa ni Médina du du du du lu ndaw ci Sénégal ci centre ville bi la nekk ñi fa dëkk ñëpp a xam li xew ci àddina bi fépp partout donc nag tey jii ñoom ñoo war a mun a jàppale seen i autorité mhm. jiitu ko ci maire yi ak kilifa yi nga xam ni fa la ñu dëkk parce que boo xoolee tey jii man gis naa le maire Bamba Fall xam nga gis naa ko mhm. mu génn wax gis naa ko mel ne tamit Cheikh Ba Cheikh Mat mhm. Tidiane Ba mu génn il était trop jeune xam nga te tey jii bu la yàlla dimbalee may la ay leader yu am yenn dimension yi chaque jour ñooñu yow yaa leen war a mettre à l'aise mooy may ñaan la jeunesse médinoise comprendre ni tey jii li ñu di tëddaloo vingt du dictature du dara feebar bi mhm. li muy bañ mooy dajaloo mhm. mais bu nit ñi toogee seen gàll rek mu jeex mhm. donc dañuy ñaan encore une fois waa Médina xam nga ñu comprendre ni tamit du ay damay buuma ko buumi wala dictature encore une fois nañu déglu li kilifa yi def bu ñu ko li bëgg dëgg la nañ déglu li kilifa yi def mais aussi li influenceurs yi di digle parce que ku ci mel ni Diaw Ketchup gisoon nañ ko mu génn toppoon ci ñi nga xamante ni dañoo nekkoon ci biti moom aussi am na snap yoo xamante ni ci téléphone sax la ko nit ñi gisee muy wane heure bi ak naan dañoo bëggoon génn parce que dañoo yàkkamti woon génn et cetera peut-être que daf ko doon def ci cadre foo mais aussi am na ci ñoo xam ne jëluñ ko nuñ ko war a mais dañuy jóge ci xibaar boobu aussi daal di dugg ci deuxième actualité nga xamante ni Dakar Buzz point net moo ñu ko xamal ku ci nekk xam na li nga xam ne moo xew fële ca ñaari tali mooy la famille euh, Pouy nga xam ne ñoom nekkuñu si à l'abri actuellement dañoo génn ci seen kër yi am ay problème yoo xamante ne wàllum titre foncier la ba léegi euh, xamuñu fu wàllante di mujjee ak gëtam parce que am na ci ñoo xam dañuy joxe waaye defal yàlla di joxe ay xaalis ñi di joxe ay vivre et tout Wally Seck ak euh, Prince Koumé yónni soxna Aïda Diallo ak Bafa ñoom aussi site bi duñu ko xamal ne que dañoo yóbbu woon ay don daal di koy joxe foofu noonu pour dimbale leen ko que dafa amoon ay aide yoo xamante ni jotoon nañ ko mais aussi benn femme bu nekk ci dëkk bi yore appartement doon leen ko may wala mu abal leen ko mbaa mu jox leen kër ba léegi démb jot naa waa ji au téléphone mu daal di euh, confirmé wul li nga xam ne moo jot a am euh, waxul ci lu lu lu ci jëm maam góor xibaar xanaa yëguloo ko. waaw xibaar boobu maa ngi koy dégg nag famille maa ngi koy gis ci internet bi laa koy gis mais comme ni ma ni ma ko waxee rek. léegi mhm. ci waa dinaa laa koy wax. ñun benn mhm. population lañ ba xam ni ñun ñëpp dañu war a doon benn say jàppalante. Mhm. tey jii benn famille bu nekkee ci mbedd yaakaar naa ni tey jii. Mhm. da ngay gis gars yi di def ay téléthon. joxe naa mhm. dix million joxe naa vingt millions joxe naa quinze donc yaakaar naa ni tey jii euh, wax nga ko léegi ci mhm. waal man liir naa ci internet bi. jox na leen million. donc yaakaar naa ni boo amee million. di nga am trois mois au moins boo mën a avance ci location. et yeneen Sénégalais yi nga xam ni tamit mun nañ ci jàpp xam nga. ñun ñëpp ñu jàpp ci. Mm-hmm. xam nga jàppale leen parce que tamit àddina amul solo. Mm-hmm. góor day jàpp ci góor góor jàpp ci góor. bu mm-hmm. nit ki yegg fu mu jëm. Mhm. voilà ayca ci troisième actualité bi la ñuy jëm mooy Boy Bambara nga xamante ni tàggee woon nañ ko fi ndekete du dëgg parce que dafa amoon ñoo xamante ni des personnes mal intentionnées peut-être que feebaram bi dafa yàggoon trop trop trop moo taxoon ñu an avancé ci ba tey ci dakarbuzz.net mais aussi gis nañ ni que Balla Gaye am na ci lu mu jàpp bu baax a baax ci digganteem ak euh, kii di Boy Bambara Boy Bambara nag ci fàttali moo nekkoon mbër boo xamante ni euh, daan na am ay prouesse yu bëri ci làmb ji doon na daan ñu baree baree bari moom actuellement nee na moom c'est à Balla Gaye que mu ngi respecté ay rendez-vous te kenn ñëw dimbaliwu ko en aide te aussi bëgg na bu fi jógee àddina balaa ñu koy rendre hommage ñu defal ko li ñu koy defal nii moo gën ñuy bàyyi ba mu jógee fi pour mën koo defal li nga xam ne moom lañ koo bëgg defal booy bambara di mbër boo xamante ni moom xam naa ne mbëru mbëru Rufisque xamante ne ñoom moom bu baax waaw ñun bi ñu nekkee xale dañ naan dégg booy bambara ay papakan xam nga ñu nekk ay nit yoo xam ne duubalees mm-hmm. mbay géey mm-hmm. xam nga ñu nekk ay maam jambaan ay mbër yoo xam ni yàgg nañ def ay jaloore fii mm-hmm. tàgg nag moom Sénégal moom yàgg na fi. Mhm. chaque jour ñu tàgg mag wala ñu tàgg xale. Mhm. te yaakaar naa ni dee kenn du ko yéene kenn. déedéet mhm. Boy suñu papa ak Sénégal amul kenn ku ko fi yéene dee. peut-être benn nit mooy dégg dara affaire parce que léegi réseaux sociaux yi dañu am doole. et ce comprendre la donc nag dañ koy ñaanal yàlla may ko wér et puis ga Balla Gaye 2 ñu koy féliciter di ko encourager. xam nga mbokku mbërëm yi tamit roy ci moom. parce que Balla gay 2 chaque jour soo koy da ngay dégg nii. mu ngi soutenir ay nit mu ngi jàppale nit te ni muy amee xaalis dafa metti mm-hmm. ay kurpañ lay dóorante ba sonn mm-hmm. ay bañ bu wadd xaalisam bu toj yëpp waaw di jàppale ay nit mm-hmm. donc nag waxuma ko parce que voilà mais dama koy wax parce que Balla chaque jour nit ñi de loolu ma dafa mel ni sax moo koy dimbali yàlla di ko dimbali muy am ay ndam donc maa ngi koy encouragé li mu def lu rafet la te ki mu ko defal war na ko defal ndax baayam la muy Boy Bambara te booy Bambara nag Balla yàgg naa am ay combat mu taxaw koo fi Balla bëreel mu taxaw ni moo fi mën kon nag tey jii mun naa ni dafa hmm. dafa fay naar bi xoromam. balaa ñoo tëj actualité yi cinquième actualité ñi ngi ci quatrième actualité bi mooy li nga xam ne mooy coowal Diop Iseg ak kii di ba Balde xale bi nekkoon ci seen Petit gàlle artiste bu ñëpp ràññee moom aussi dafa am benn xale beneen artiste bu tudd Soxu Bébé moom Soxu Bébé dafa nekk ni jot nañ ko fële ca Diaspora 221 benn live bu ñu doon amale mu ne moom euh, euh, demul ci li nga xam ne moo di ngénte Diop Iseg ak ki nga xamante ni moo di euh, Dieynaba Balde parce que yëgaluñ ko ko ko ko te même bu ko yëgoon na ay tournant ba léegi parce que coowal Dieynaba Balde ak kii di Diop Iseg defe naa maam góor amoo ci internet bi ah, ko nag ci internet bi ñu koy wax toujours mais xam nga waa ji su fekkee ni xam nga nit ku dul jum amul mm-hmm. bu fekkee ni waa ji peut-être xam nga gis nga jigéen mm-hmm. ku mu mënul am dans la vie amul mm-hmm. saytaane moo bëri doole bu fekkee yàlla dogal na ba nit xam nga doomu aadama dafa foor nit juddu ci nit kooku ëllëg mën naa doon lu nekk ndax sénégalais la. Mm. noo jàngatee loolu yow. ni ma ko jàngatee mooy peut-être du lu ñuy rafetlu. Mm. parce que boo nekkee kilifa. nekk koo xam ne nit ñi dañ lay rey surtout nga yor école ay nit di fa jànge mm. da nga war maytu chaque jour loo xam ne mën na la indi problème su fekkee da gis xale bu jigéen nga bëgg ko war nga mën a waxtaan ak sa njaboot ni leen kii dama ko bëgg nga takk ko ci farata ak sunna peut-être seytaane ñëw na mm-hmm. yàlla dogal na coow am xale bi fippu na jéngu na coow am a ëpp solo ci àddina mm-hmm. mooy lan gis na nit da ngay jégale di jëlale njuumte day am nit ku dul juum amul mm-hmm. li tax yàlla ne àjjana ak safara ñi juum ñoo jëm safara mm-hmm. mais ñi juumul àjjana la jëm peut-être sax mën nga juum yàlla yóbbu la safara mm. mais li am solo moom mooy comme moom dem na ci ni ma gis ba reconnaître ni voilà jënd xaram ñëw tudd affaire deme noonu man su ma sañoon famille yi waxtaan su fekkee mun na ko jël comme soxna mu jël ko et puis xam nga on tourne la page euh, mais mais coowal Diop quand même bigi dafa bëri ay noon yi parce que man fan yële liir naa ci benn site internet ñuy xam ne ni euh, waa famille euh, Kër Diop dañu démentir information bi wax ni dafa dem pour tudd ji xale bi et que mm-hmm. na ko mm-hmm. famille Dieynaba daal di ñoom itam confirmer la thèse que Diop ñëw na réellement tudd na xale bi ba ci mm-hmm. Mbougazelli lañ ko tuddee ou pas y'en a qui disent que Seydina Tanor la tuddee benn ami d'enfance am bu nga xamante ni dafa yàgg ak moom et tuddee ko benn yoon Seydina Fall Mbougazelli en tout cas c'est beaucoup de choses yu nga mm-hmm. xamante ni xëy na sites yi ñu ngi koy bind de jour en mm-hmm. jour te amuñu benn yoon lu nga xamante ni mm-hmm. leer nañu réellement dans cette histoire on espère que lumière va être faite sur cette affaire et que nit ñi fixé wu une bonne fois pour toutes parce que euh, beaucoup de gens sont très friands des informations yi nga xamante ne moom moo tukkee ci euh, coowal Diop euh, ISEG. ba tey ci coowal Diop ISEG bi sax am na benn vidéo bu doon circuler boo xamante ni Dieynaba Balde dañ ko gis mu daal di solu mel ni kuy ngénte mm-hmm. aussi mu sol vêtu de benn penjab en grand bu et tout sëram def na live sur Facebook daal di démentir nekk ni loolu du dëgg mais malheureusement vidéo yi dafa am benn date bu ñuy bind ci côté bi ak heure bi mu ko defee te jour boobu dafa coïncider trop ak jouru ngénte bi mm-hmm. je l'ai joint au téléphone mu ne carrément que ni Diop Isaac ñëw na ba ci ngénte li daal di indi li nga xam ni moo di ay vive ak euh, xaram ak yëppam ak ñaari kilifaam ak imam bu ñëw tudd xale bi hmm. donc juste pour di wax lu rafet rek ci diggante ñoom ñaan ñu nga xamante ni certes que xale bi mineur la mais aussi le mal est déjà fait peut-être que ni xam naa dinañ daal di def juge juge bi dina tranché daal pour ñu mëna féete li nga xamante ni moom moom moom moo fi war mi ngi noonu ayca ci dernière actualité bi leeral point net moo ñu ko xamal moom nag euh, day ñëw ci ki nga xamante ni moo di frère Dame Amar di Beydi Amar moom Beydi Amar nag dafa am euh, ay problème yoo xamante ni da ko am ci tali bi parce que dañ ko arrêté woon bi ñu arrêté otom bi nag am ci ñoo xam ni nee dañ ci fekk li nga xamante ni mooy wàllum naan mais aussi moom dafa am version boo xam ne jot na koo joxe ne moom da doon dem li nga xam ne moo di këram te dafa am ay courses yu mu doon def mais malheureusement dafa daal di daw bàyyi fa to bi après bi mu xëyee ci la daal di dem rendre boppam bi mu demee di rendre boppam nag ci lañ ko fa teewee mais finalement mujjee nañ ko bàyyi pour dire que ni après Dame Amar Beydi Amar moo ci topp te pourtant Ahmed Amar moom c'était un milliardaire boo xamante ni da doon joxe de très bons exemples dans ce pays. Mhm. on a di euh, dans les informations. Mm -hmm. que moom Beydi dañu ko jàpp pour conduite en état d'ivresse mhm. et aussi pour violation à la loi bi nga mhm. xamante ne moom mooy ñeel couvre-feu bi aujourd'hui on a lu un article sur le net disant que moom en réalité dafa génnoon pour wut pharmacie et que bi mu génnee ba sori il était vers les coups de vingt deux heures bi mu génnee ba sori ca la dajeeg ASP yi ASP yi wàññi ko ne ko pharmacie amul fii ba muy dem pour policier mu tiit daw mm. loolu la xamle newaat itam bi mu xëyee dafa dem rendre boppam fële ca police bu jëppal mm. expliquer leen des faits noonu lañ ko téyee quelques mm. minutes après daal di koy libéré mu mel ni euh, doomu doomu entre guillemets maam góor doom les fils de riche wala les fils de yi à chaque fois dañu leen di lié ci ay scandale yu nga xamante ni euh, fa muy mujjee du du neex wala bu ko seeni waajur yéegee am gàcce xam nga man chaque jour dafa am benn mu boo xam ni man bokkuma ko sénégalais yi man pour man fils à papa amul. Mhm. ñëpp ay fils à papa lañ. Mhm. sa papa nekk pauvre wala mu nekk milliardaire. Mhm. wala mu handicapé wala mu normal fils à papa amul ñëpp ay fils à papa lañ. je comprendre la donc il faut que nit ñi jël esprit boobu dindi ko xam lan moo am sénégalais ak jeune. soo nekkee un jeune sénégalais def loo warta def. dañ la war a yar parce que jii réew mi. dañ fi joxe benn date boo xam ne dañ ne képp ko vingt fekk ci mbedd mi vingt heures warul fekk kenn ci mbedd mi mhm. bu la fekkee ci mbedd mi dañ la war a faj ba ñëpp xam ni faj nañ la loolu mooy yoon mhm. est-ce que ay dem naa police rendre naa ak rendre mooy loolu amul sens mhm. dañu joxe benn heure boo amee garab gooy jënd sept heures ci suba ba dix huit heures wala ba dix huit heures trente wala ba dix neuf heures trente mën ngaa dem jënd garab yi ngay jënd soo fekkee asthmatique nga nga jënd sa garabu asthme denc bu fekkee garabu leneen la nga jënd ko denc mais munoo taxaw tey ji ñëpp xam nañ ni pharmacie yi heure boobu ñëppay tëj. ñoom ñooy gën a njëkk a tëj sax. est-ce que comprendre nag kon man d'accorduma ci thèse boobu il faut que benn moment ñi nga xam ni ñoom la ñuy tuddee loolu jël leen tuddee leen loolu. Hmm. ay à papa wala yu mel il faut que euh, loi bi jël ci ñoom ay exemple di leen hmm. faj faj ba ñëpp gis ni ñuy faj nañ leen. donc ñeneen ñi dinañ ci jël leçon. Hmm. parce que tamit loo nekk ci réew. gënoo nit ñi papa gënoo nit ñi yaay heure bi nit ñëpp di tëdd nga ne yow du ko tëdd. Mhm. heure bi nit ñëpp dox nga ne dox waxuma nag. te am na fi ñoo xam ne seen i baay yor nañ fi lu ne. Mhm. mais dañu correct. Mhm. donc yow tey ji sa baay bi la jur baayam kenn xamu ko woon te pourtant dafa ñafe ba doon ki mu doon. kon waroo këpp yalwaanam. te man pour man rafetlu ma lii ñii dañuy këpp seen yalwaanu papa. mais maam Góor est-ce que dañu dinañ leen di faj yaa ngi koy wax leen di faj parce que. quoi qu'on bi dire dernièrement yëg nañu affaire daam Amar ak la ca toftalu yëpp yenn ci ay site internet xam ne ni actuellement euh, on mais la pression ci euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ñu yor wàllum yoon pour ñu libérer daam amaat moomu noonu looloo waral ña nga xamante ni xëy na ñoom ñooy ndaw yi ñu limaale woon ca boobu la histoire ñoom ñoo taxaw bañ ne bu daam tëddee dañuy tëdd bu daam génnee ñoom dañuy génn. Mm-hmm. est yooyu noonu yëpp du réconforter les dires. comme quoi doomu baadoolo xam nga Sénégal xam nga Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne dégg naa moo sonal nit ñi. gis nga fii juge yi ngay gis nii école lañ dem jàngi ay boy yu ndaw lañ xam dëkk bi nu mu demee loolu ñuy wax noonu ay rumeur kese la dëkk bi dafa am yoon soo defee yi ay ma non non non damay kan mooy nangu dem di ànd ak nit naan damay dem tëdd kaso di gore yooyu dafa amati amul soo defee njubadi dañ lay àtte boo defee ñu def la ni ñuy def ki def soo deful ñu génn la nga dem mais man du ma gëm mukk ni ay nit dañu ñëw ni non comme diw ni amul pré kan mooy pression fii kenn du leen bàyyi parce que heure bi ñu nekkoon di ko dox yow boobu yaa ngi sa kër man maa ngi sama kër keneen ak keneen sa kër nañu def ba génn. tey ji loolu ñun waxoon nañ ci yàlla dogal na policier moo leen génne woon boo xam ni peut-être dañ ko woo wala genre yu mel noonu mhm. yàlla dogal na ni tey ji yoon wane na ni man bàyyi ma fi kenn policier baag ña ca àndoon ak ñëpp lañu jël téye leen mhm. léegi nag man duma ma déglu rumeur bu leen bàyyi woon nag xëy suba teel ni bàyyi nañ leen bu boobaa ñu xam ni dinañu wax sénégalais lan moo tax ñu bàyyi ñi mhm. mais pression moom tey ji képp ku sa doom wala sa mbokk nekk ci kaso wala police di nga jéem a def ay pexe. Mhm. pour ñu bàyyi ko. Mhm. parce que kenn yéenewul kenn kaso. Mhm. mais yaakaar naa ni bàyyi bi du yombe noonu te bi justice bi ñàkkewuñ noonu du ñàkkuñu fayda. mbir yi jeex na. waaw jeex na actualité yi jeex na mais dafa am lu ma intrigué ma bëggoon ko laajte maam góor yàgg yàggul dara déggoon nañ fi. ay affaires yoo xamante ni am na benn interview boo defoon wala benn sortie di wax li nga xamante ni mooy ñi nekk ci biir camp militaire yi ñoom dañ leen war li nga xam ni secouer leen wax leen ñu liggéey ñu génn moo gën tëdd beeg yooyu noonu ba ci am ay retour ay euh, lieutenant ak ay nit yoo xam ne dañoo génn ñoom it ne dañ lay songu ñi ne dañuy jot ak yow wala dara lan moo indi coow li carrément. voilà xam nga euh, loolu sax euh, coow bu paase la mais mën naa ko indiwaat. Mm-hmm. parce que coow loolu bi muy am man dama demoon. ci benn conférence sama doom moo doon def conférence de presse. Mhm. di génne albumam. mooy Talla Diagne. voilà léegi bi album bi bi ñu paree ci conférence de presse bi xam nga ma génn di dem benn journaliste dab ma. Mhm. fekk jour boobu dafa am benn xale bu tudd Njóoba Sekk mhm. ku dëkk Pikine dañ ko reyoon xale bi dab ma ni ma démb ci guddi de dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne dañ ko rey Pikine jam ko 64 coups de couteau man bi may wax sax dama xaw am tuuti dama xaw a àllu tuuti quoi mm-hmm. xam nga mënuma léegi nan nga gisee insécurité bi am ci dëkk beeg yooyu mm-hmm. ma ne ko tey jii police ak gendarmerie yàlla dimbal nañu ni ñun suñu police ak gendarmerie dañu ay mm-hmm. boo fi defee dara loo mën a def mun nañ enquête ba jàpp la mais bu seen effectif doyul tey jii dëkk bi amul guerre on a des militaires yu nekk fii ci kan yi dañuy entraîner lekk ñëw tëdd léegi xam nga waxewu ko noo xam ni dama wax ni ñoom yambar lañ wala liggéeyuñu mais xam nga fii bu fekkee ni tey Sen TV laa nekk di wax ci benn tele li may wax lépp la ñu génne. Mhm. mais bu dee site internet moo la interviewé. Mhm. day dem pour wut ay buzz wala wut. dagg li gën a bon day dem dagg nga xam parti ay lekk ak naan rek. Mhm. dem dagg mu génne ko quoi. mais man li ma ci jublu woon mooy tey police ak gendarmerie ñu ngi liggéey am nañ ay militaires yoo xam ne ñu ngi fii ci camp militaire yi dëkk bi mhm. amul guerre amul dara war nañ mën a jël effectif boobu mu jàppale seconde police ak gendarmerie mhm. te tey ji yàlla dogal na ni loolu avant muy am feebar bi ñëw na tey ñoom génn nañ ñu ngi jàppale police ñu ngi mhm. jàppale gendarmerie est-ce que am la tey nag dafa am ñoo xam ne mun nañ nekk sa ay ennemis ñoo xam ne peut-être maam góor ni mu mel dafa leen di déranger arrangé wu leen tey ji ñi doon wax ñëpp gis nga armée mooy la grande muette mm-hmm. armée xam la lañ xam liggéey dóor mu daanu mm-hmm. te dëgg dëgg neex yàlla man mon meilleur ami est militaire mm-hmm. benn te fekkoon du ñu jàmbaar wala dëgëruñu wala nooy dañoo nooy terrorisme dugg na ci Afrique bi yëpp ba mu des Sénégal donc ñun ay militaires yu mool lañ am yu baax. Mm-hmm. mais dafa am ay seytaane ay nit jaxasekat yoo xam ne dañ ciy nekkaale. Mm-hmm. jël ay dix mille firi may ay ñoo xam ne. ñoo xam ne xam nga ay ay ñoo xam ni xam nga tey jii ba un militaire libéré dekkatul militaire. Mm-hmm. civil la comme man tey jii yow bu fekkee ni da nekk un boo xam ne da nga libéré wala nga nekk militaire bu dem retraite yow nga génn naan maam góor li mu wax. boo nekkatoo militaire mën a geew a yem mm. <laughs> ñi nekk ci camp yi di di ñooñu amuñu jot parce que mm. ñu ngi ci camp yi di liggéey mm. mais ñu ngi ci déggoon yëpp ñuy wax naan dañuy porter plainte ak damay def lii ak association jotoo benn dama lay wax ñooñu ñëpp ay nit lañ yoo xam ni peut-être euh, man ak ñoom a yem statut ay ñu ay civil la ñu parce que boo nekkee un militaire nga dem ba libéré wala nga dem ba ancien militaire nga tu ne plus dans l'armée mhm. est-ce que man ñooñu nag ñooy dem génn ay nit jël leen nekk ci ginnaaw di leen pousse di leen di mhm. mais man j'ai aucun problème avec mon armée mhm. armée bi sama armée la sunu armée la parce que tey jii ay jàmbaar lañu ay liggéeykat lañu donc nag dafa am ñoo xam ne dañuy yàkkamti comme maam góor du tux du sàcc du fen du jëw du wuruj du def dara loo xam ne peut-être na ñoo xam ne ñu la bëgg. Mhm. dañuy xaar dara. est la. donc mhm. occasion yu mel bëgg a profité pour jéem la jaxase ak àddina. mais mhm. yàlla dimbali lañu tabarkàlla ba tey jii ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite armée bi. comprendre nañ xam nañ ni maam góor waxam bi fii la jóge te fii la jëme woon man bëggoon naa xam itam maam góor sa point de vue par rapport ak euh, comment dirais-je, euh, um, situation nationale bi gis nañu feebar bi ni mu euh, euh, arrêté bépp xeetu activité gis nañu euh, comité cellule force Covid bi njiitu réew mi teg na ko mu bari lool ay amalgame gis nañu ni nga xamante ne noonu la feebar bi impacté peut-être ci liggéeyu artistes yi ñoom ñoo ci pratiquement les plus gros perdants. Mhm. ban njàngat nga def euh, globalement ci ci yooyu. non njàngat bi ma ci am moom mooy tey jii li dal Sénégal moo dal àddina bi yëpp. Mhm. Mhm. mais nag loo gis dafay am exception. ñun yàlla daf ñu dimbali fii ñu am ay kilifa yu baax yu Sénégal dëkku barke la dëkku gis na li ñuy wax teraanga la moo teraanga ñun yàlla daf ñu defal teraanga. teraanga defal ay nit yu baax yoo xam ni dañ fi tëdd. feebar bi ni mu def États-Unis def ko Italie def ko France def ko fep Sénégal ñu naan ay sis moor lañ am di ko faj muy wér sa am na beneen am na ya am na loxo bu ñu gisul xam nga yaa may invisible boo xam ne kenn gisu ko mm. loolu yàlla la mm-hmm. mais nag population bi il faut que ñu dimbali nit ñi nit ñuy dimbalee euh, nit ñi mm-hmm. mooy ñu góor góorgóorlu ci jàppale état mm-hmm. mooy tey digle yi nga xam ne moom la médecin yi joxe maa ngi gis ay ñoom professeur Seydi xam nga ay gars yëpp ñu ku nekk mu ngi génn di joxe. Mm-hmm. di wax xalaatam donc dañu war a fexe ba jàppale ñi nga xam ni ñooy kilifa médecine yi. li ñu mm-hmm. digal ñu def ko li ñu tere ñu bàyyi ko. Mm-hmm. beneen bi ci topp mooy li xew nii dafa xew ba pare mu impacté ñu bari mu mu tey ji boo xoolee dafa impacté les artistes. les transporteurs. tourisme boo xoolee am na ay ay ay ay ñu bari ñoo xam ne tey ji affaire bi daf leen sonal. mais tey jii soo xoolee artistes yi tey mun nañ ni même tourisme mënul dox sans sans culture. parce que tubaab yi fii ñëw di visiter Sénégal seen dëkk am na hôtel. Mm-hmm. seen i hôtel a gën a rafet suñu hôtel seen i dëkk am na naaj parce que ñu dañuy tukki di gis naaj fu nekk ci àddina bi bu ñuy ñëw fii suñu culture moo tax ak artisanat bi nga xam ne moom la ñuy am mooy mooy suñu suñu suñu gars yi il sont forts est-ce que la donc tey jii les hommes de culture ñu ci bëri. tey ji dañuy souffrir da ngay nekk ci famille siw nit ñi xam la nga toog presque deux mois affaire bi mu commencé artistes toog nañ presque une semaine avant que ñëpp di confiné wu. Mhm. artistes yi liggéeyuñu concert amul spectacle amul xam nga dajaloo amul te artiste lépp lu mu am ci dajaloo la koy am. Mhm. est-ce que comprendre la donc tey ji ñun benn kër lañ am boo xam ni fa la artistes yi wéeru muy la SODAV mais tey SODAV tey kenn munu leen wax dara. parce que li dal artistes yi moo leen dal parce que SODAV il faut que hôtel yi ubbi restaurant yi ubbi boîte de nuit yi ubbi pour ñu mën a def ay exécution pour mën ci jël xaalis pour mën a fay artistes yi donc tey li fi des mooy le ministère de la culture euh, te le ministère de la culture mais SODAV ñoom xam ne nañu ni at mii ñu nekk nii artistes yi lañ daan jot amaana du ñu ko mën a jot ndax euh, ñoom ils sont très impactés. non ils euh, xam nga man tey ñëpp xam nañ ni man SODAV du ma leen may fu ñu teg seen tànk. Mhm. su ma gisee loo xam ni. damay xeex ak ñoom guddeeg bëccëg. Mm-hmm. Mm-hmm. mais tey jii kenn mënu leen wax dara. Mm-hmm. parce que fañ daan exécuter pour mën ñu fay. tëju na. léegi nag le président de la république Macky Sall dama koy encouragé di ko félicité ci njàmbaarteem ak xam nga ni mu ñëwee woo couche yëpp tous les forces forces vives mu woo leen waxtaan ak ñoom ay sénégalais génne seen alal cotiser def ci mu ne ñi nga xam ni ñooy impacté yi. dina leen soutenir dina leen jàppale ci gémmañu président mu tudd culture mhm. tey ñu gis ni tourisme transport sport ñi nga xam ni ñëpp ñu ngi nekk fii ministère yëpp kenn ku nekk sa ñoñ ñi nga xam ne yaa leen yilif yaa ngi leen di gérer mais ñun le ministre de la culture on le voit pas mhm. on a un ministre dormeur mhm. gisuñu ko dégguñu ko même y a des artistes yoo xam ne ay artistes yu mag yoo xam ne ils ne connaissent pas le ministre boo leen waxee ni diw mooy de la culture xamuñu ko. mais est ce que loolu du ñëwaat peut être ci crainte sénégalais parce que à chaque fois dañuy faral di wax ne régime bi fi nekk il n'y a pas les hommes faut à la place qu'il faut il faut dire que ci régime bi ñu nekk nii de à on a connu plus de six ministres de la culture. ci temps bu gàtt boobu est du yooyu moo waral à chaque fois ngeen di euh, devoir nekk à un éternel recommencement. xam ministre mën na nekk ci benn secteur pendant trois mois sax defar ko. Hmm. est-ce que comprendre la mooy xool xam nga. nit ki nga xam ne dafay xalaat ne kii war na ko mën a gérer lii mu gérer ko mais dëgg dëgg dëgg neex yàlla bi ñu commencé man boog bi ma nekkee ci Sénégal ba Sénégal daj ba ma nekkee j'ai fait presque vingt cinq ans de carrière ci musique bi mësuñu mm-hmm. am ministre de la culture bu mel nii mm. ñëpp a ngi jooy artistes yëpp a ngi def ay vidéo lu ngeen koy reproché parce que tey jii bu fekkee dañu nekk ci pandémie bu mel nii moom ay artiste mooy lii ndaw si way ni góor rek a sonn mënul mm-hmm. yelwaan xuma mënul genre yu mel noonu way na way bu mel noonu donc artistes yi nekk dans le besoin sonn yoruñu ñaar dërëm tey jii président génn ni moom dafay jàppale askanam day dimbali askanam le ministre nekk fii tey jii ñu jékki-jékki toog pendant presque deux mois yoo xam ni léegi mu jege ko artistes yi liggéeyuñu mm. ñu xëy suba teel artistes yi commencé di concerté wu di waxtaan après bi ñu concerté woo waxtaan sama classe gi nga xam ne peut-être am na artistes yu bëri tamit yoo xam ne tey ji soo xoolee rappeurs yi li tax ñu gën a organiser mm-hmm. tey jii mooy rappeurs yi même bu ñu jubawul seen biir s'il s'agit d'intérêt général ñoom ñëpp dañuy ànd def benn say mm-hmm. mais ñun suñu malheureusement tey jii boo benn maam góor génnee da ngay gis ñoo xam ne dañ lay woo félicité la mais dañu ragal sax wax mm-hmm. parce que mais ministre moom mooy mm-hmm. tey dafa am benn fond boo xam ne mooy force Covid 19 force Covid boobu ñu gis ñëpp a ngi jàppale seeni ñooñ ba léegi amul benn artiste boo xam ne jàppale nañ la léegi léegi tey waaw mais moom la léegi ñun bi ñu commencé di def bruit di yëngal. Mm. mu yëg ni artistes yi commencé nañ démb comme ni ma comme ni nga ko yëgee comme ni ma ko yëgee. Mm. mu jekki jékki ñu am ay artistes yoo xam ne dañ leen woo ñuy jox leen trois ñuy jox leen cinq cent mille ñuy jox leen lii ay dañ koy dem jël ba pare ma ne leen artiste bépp bu ñu woo ci pet jox la xaalis demal nga jël ko ndax xaalis bi ñu lay bi ngay jël. sa xaalis la yow yaa ko moom. Mm-hmm. mais normalement tey jii base de données bi nga xam ni man Sodaaf jubóowuma ak ñoom. mais tey base de données bi ñu am xam nga ñoom tey ji waroon nañ mën a ko créer benn collectif mm-hmm. associé si ñooñu ak seen base de donné ñu fexe ba artiste bu nekk jot li nga war a jot mm-hmm. te doo am problème mais mënuñu xëy suba teel xëy ñu naan ay diw jox nañ ko cinq cent mille diw jox nañ ko un million diw jox nañ ko lii mm. donc loolu moo metti artistes yi émission mm, bi malheureusement jeex na ndax vingt six minutes dong la woon on était très content de commenter ak yow actualité bi nga xamante ni xëy na moom moo gën a fës ci site internet yi xanaa ma bàyyi la rek nga tàggoo laata may bàyyi bi gi mu jeex waaw li may tàggoo nag mooy maa ngi leen di remercier mais dafa am benn dossier boo xam ne tamit Sénégal ñëpp ñu ciy wax muy dossier dossier Akili mm. ak euh, Senelec mu nekk dossier boo xam ni dafa intéressé sénégalais yi parce que ñëpp ay fay courant mhm. société bi sénégalais yi ñoo ko moom mhm. su fekkee dafa am lu lëndëm lu fa nekk mhm. nañ ko leeral sénégalais yi su fekkee ni dañoo jox contrat Akeli contrat boo xam ni waruñu ko jox ñu leeral ko sénégalais yi bu fekkee ni tamit ñoom seen contrat dafa ñoom ñoo ko moom xam nga ñu leeral ko sénégalais yi mais tey ji kenn xamul kan moo nekk ci dëgg tey ji ñu ne DG Senelec bi dafa jël dafa bokkoon ci conseil d'administration bi signé contrat bi. Mhm. mu remplacé Mamadou Matar Cissé Mamadou Matar Cissé dem mu bëgg a tilimal deram. Mhm. bëgg a dindi contrat bi. Mhm. ñee tamit ni ñi fi nekkoon dañ ko bëgg a.